saa yow li ñu ci dama ne la dama ne la borom borom dañ la jot a proposé malade gawsu et puis booy wax li ma ciy gën a reetaan lu <laughs> su naan way man gawsu comment un opposant su kañ nga nekk opposant no xam nga. gawsu yaa ngi ànd ak Amadou Ba xam nga gawsu opposant ça c'est c'était à l'époque c'était dans le temps xam nga xam nga tubaab dafa ne comparaison n'est pas donc bu fekkoon ne suivre nga filu li ma doon développé suivre naa lépp dama doon joxe exemple ci man mënoon naa joxe exemple ci kii mënoon naa joxe exemple ci mais exemple laa doon joxe sur l'opposant laa doon joxe mais pas Gaoussou en tant que opposant donc tey euh, en résumé euh, fi may waxee ci loolu mooy que ne euh, en général ces gens la Ciao. ils ont dafa débat débat gis nga boo noppee débat bi ba fin temps nii la koy téye parce que dafa tàmm débat non non non parce que xoolal man sax maa ngi koy bëgg a dagg mënu ma léegi ils sont ils sont habitués ce sont des yoo xam ne tellement ils connaissent ces mécanismes là ils savent comment ça se passe les porteurs de mallette d'accord ba nga xam ne ne xam nañ fi ñuy jaar ak fi ñuy jaar maintenant le cas nag nga xam ne wax na ci wax non non non loolu foofu lay député bi nga xam ne ne wax na ci waxi euh, Sonko ci affaire financement bi man franchement loolu man joxuma ko benn crédit. bof te munu te mënuma ko jox benn crédit tant que amuma ci lu ma leer te foofu laa ci toll te loolu moom c'est mon droit le plus absolu